ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp euh, li tax ñu dajé fi lu am solo la lolu moy lan euh, li ñëpp xam dañu am Khalifa, moy ki nga xamne ne mo tok placeu bay diité mbolo mi de nga tay bay mom lay laaj compte rendu ci fayda bi kep ku am lettre wala nga am lo bëgg wax ak bay fofu mo gëna officiel mo gëna jaadu pour nga jaarale ko fofu mu ag ci euh and nak mom ñu dem umrah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

Mourchid TV am ngeen jaaraama yéen ñi ànd baay yéenay liggéey fay du baay bi ci barxama ñu ngi leen di gërëm ñu leen di ñaanal waa Kossy TV yàlla yàlla jox leen